mbooleem ñin àndal ci liggéey bi muy bureau bépp ñoo fi teew ngir kàddu yi tàggatoo jotaay bii ne rafet lool neex ci xol lool bu fekkee ne bàyyi nga xel ba nga koy soog te metti woon lool te tey jii bu yomb lool neex lool ànd ak cawarte suñu Afia liggéey bi ñii Sëñ Saliou Mbacké dénkoon ci ak dundam nga jiite ko réussir gi muy réussir jaaroon gi muy jaaroon ba ñëpp di ko rafetlu àdduna bépp xamal ne daayira bii ni mu xalma xima Touba mu ngi ko ànd ak mu xadamatul xidma bu Louga ñëw nañ ak mbooloo indaale ay xéwal yu bëree bëri ci bis ilham latif al xabir niñ nga ko xam ñoom ñëpp def na naan defati ànd ak mbooloo ñëw ci liggéey bii ngir ndam li gën a yaatu Safiinatul Amaan bu sëñ góor a jóge ànd ak mbooloo ngir liggéey bi ñu sëq mu def ci wàllam mook ñim àndal Lamp Fall sécurité kenn demul ñu des ñëw nañ ak seen mobilisation bu mat sëkk ànd ak seen i jawriñ ñëw jàpp ci liggéey bi wakkaane xàqan ñoom it na li def ñëw ak pësteef ak jom ak fulla ngir jàpp ci liggéey bi fatul xafaar ñoom ñoom ñëpp ñëw nañ ngir ànd seen liggéey bi ak xidmatul masaalik bi nga xam ne suñu mbokk taalibe la nekk masaalikul jinaan di benn liggéey buñ bokk ñu ñëpp ñoom it ñëw nañ ànd ak seen ñëw jàpp ci liggéey bi kon liggéey bi nit ñii ñoo ko def te jàpp naa ne ñun ñëpp gis nañ ne lan sàkkoon tracé ko bëgg koo def su borom dimbali nañu ci baaxu Serigne Touba ban def ko ni mu war a defee ndegam sëñ bi nag daa joxoon bis ak waxtu ak defi su waxtu ba jeexee lii gën ci mooy ñu tàggatoo dem waajali màggal Tuuba dem waajali ko dem waajali ko bam ni meloon daaw ak daaw jéeg daawati jéeg mu raw ko fopp te loolu rek moo tax ñu koy dege ngir maa a tàggatoo demaat na commencé waajal màggal ndax xam ngeen tey lañ tey la ñaari fan suba ñetti fan kon ay bis la ni yi kon daal mu gudd gàtt ngeen déglu Baye Yàdd mu wax ci turu ñun ñëpp turu xidmaat ba ci suuf ndax ñun ñëpp benn bopp lan ay daayira turi daayira moo ñu séparé turi daayira moo ñu séparé waaye ñun ñëpp benn jublu am mooy liggéeyal Cheikhul Khadim kon nan bàyyi Baye Yàdd mu wax suñ su paree sëñ Afia soññuñu ñaanal ñu ñu dal koy tëye màggal ñu teel a ñëw def na defe woon asalaamaaleykum alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla bu baax bu baax a baax Matar wax na ko sémb muñ fi mësa sémb nee na bu matee coleet seenu jàpp la kenn mënut dara naam seen pëstéef ak seen yéene ak seen jol seen lépp ci Ahmadul Xaddiim sàllaaw day feeñ saa su ne ñu ji koy def ci ak man ak lu ñu mënut ndax du doon ngor ci ñu yem suñu diggante ak Ahmadul Xaddiim ci li ñu man sàllaaw daj na lu ne lépp lu buñ xalaatee ne jëfees ko ci jëmmam ja wàññi pëstéefam jëf nañ ko ta te pëstéefam di ko rek te wallahi ñun képp taxoon kon daraam wuruta fanaanal la lépp lu mu bëgg nam ko bëgg da ko naa war a amee kon ndokk biyand bi loolu rek taxe te coow li bëri bëri bëri kenn moomu ci lenn ak muru képp moom lépp soññ bu ci waay mënti def seeraloo ko keneen ku dul moom foofa la foofa la sakkane fa la ware it ndax wax jëpp kan ngërimul ëx la la di dàkk te doo ko dàkk ci dàkk ko kepp da nga koy dàkk ci jëfal ko ci loo man ak lu mun ci ak saxal it nag euh, yàlla na gën a yàgg mu ngi bëgg a yàgg mboole seen muxaddimatul xidma damay wax saa sune ne ne lëg bu masayalom na ko gërëme coy mboole seen daara yi nga fi tudd buñ fi ñëwee benn mën fee yëkkati bale seen coobare la seenug yaatal la sëñ Afi Bousso Bousso Bale hmm. ñun na waaye yow de xëy na waaye ñun de sikki sëkk wuñ ci ne jig nga ñu wér na bàyyi. ndax dañoo ànd ànd bu damay wax nii boo meloon ni nga mel yéene li nga yéene te yii nga bàyyi ci barab bi mel ni ñu mel sàllaaw fii ñu yegg si duñ fi yegg ndax ay tënk ay nangam ak i nangam dana am te lépp amu ci foo yéene jëfi gaa ñii jëfi sa jàmbaar yii romb nañ ko looloo sabab tey jii. ba mbooloo mi toll nii te ku ci nekk jàpp na ne bu jëf yi jekkee maa koy defar salaaw day am na ci ñoo xam ne Ahmadu daa am jamono mu toog ak i fere ba fere yedd euh, bët wàcc kenn dikkut nee ñu laaj naa nañu ñu ne bët daa wàcc mu ne cey buñ xamoon li ci man la ca mën a raw fuuf ceebo na ma wax nag ni ceebo di du mbay képp ka ka moom magasinam tëj ko ngir amuru ceeboom la ka yorub taabalam bàyyi ko fa ngir amuru ceeboom la ka bàyyi ay toolam ceeboom la kon jaam ñii bàyyi nañ ci lépp ngir amuru xoolal bu bu ñoon fukki fan lay doon ci biir nawet sallaaw ñu topp ko ndax jàpp nañ lu ñu am moo ko moom suñu yéene moo ko moom suñu yëfit moo ko war a moom sallaaw sant nañ te lii may wax laa gëm te ni ma ko gëmale ko ñëpp gëmee nii ma ci yeboo la ci ñëpp yeboo kon li ci des mooy xam ne li ci kanam adduna doon noon na daaw ndax dana mu mat coleet noonu la demee bàyyi adduna foogoon nañ ne du sotti mukk mu sotti coleet déedéet du ñun kat it nag ahmadu moom yëf fi moo ko sottal déedéet buñ ci foog ndamu mukk fi mu bëgg mu jaar lay jaar ñi ko war a taxawee ñoo koy taxawee nam bëgg mu mel la mel noonu la demee ba mu si fii kon daaw jàll na rafet lool diwéne ngii suñ kanam mbaa reen ngi nii suñ kanam kon nu ñu takkoo woon amoon nañu amee noon na pas-pas te bañ koo seel kenn ku dul moom mu teg ci loxoom lépp sotti pas-pas booba laa ñaan ñëpp nañ ko benn lam du keleñ bu ñu songee mu sotti mbooloo mi la waaye kon bennoo gi daa war a wuy bëgg gi war a wuy jàpp ne lépp luñ fi def seereel tu kenn te it te it te it maanaam ni ñu koy defee nu ko raw la ko xamee looluy wax ji kii defal nag ki nga xam ne bàyyi boo seqee sa sa tànk jëm ca fa nga jëm ba ba ngay dellu si lépp loo xaati ci sam xel xam na ko ku am ku mel noonu baay ku am ku mel noonu jëfal ku mel noonu da ngaa ko war xam xam ki nga am ndax kat am li nga am te xamoo ko ñàkk ko ba am koo ko gën te amul munuñ koo xam mukk waaye nañ xam ne moo fi ne rek nam ko waxee rek nañ xam ne naar bee fi undi xorom si munuñ koo xam mukk li war suñu nit munuñ ko waaye nañ def bene laaj maa ngi tuub maa ngi guddal sant nañ ñëpp daal gërëm nañ ñëpp tey soññ tey soññe ku ko dégg na jàpp ne màggalug déwén mooy da màggalug ren gii mooy dàq gu daaw fuuf fuuf fuuf si kaamu si bàyyi maanaam maanaam maanaam kii di sëñ Muntaxa sag bi nam li mbég mi maanaam ku ko foññu tey jullit amut keneen it tax quoi maanaam ku dul jullit sax bëgg nga sëñ Muntaxa kon sàkkaaba ñun ñu ko moom déedéet ñoo ko moom kay waaw waaw loolu laa wax ñoo ko moom nag suñu lépp jool nañ ko ci moom te it léppam jool na ko ci jaam ñii loolu tey li lu mu doon yéen a képp la yàlla na ko ci yàlla fekk ba ñëpp xam ne lam bëgg na am na ko ba ñëpp xam ne la mu bëgg na am na ko amee ko noo xam ne dana reew xalaat kon li tax ma ne dana ko raw mu ngi nii suñ kanam xam fi muy teg tànkam xam li mu bëgg te li mu bëgg Ahmadou bëgg ko ne leen dëgg la dëgg la bàyyi bëgg ko kon lu mu bëgg day am salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah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 dañuy xam ne kenn ku ci ñun ci mboro la bàyyi ko sëriñ bee la xool ba mu soog comme la coqet na kaay liggéeyal ma te sëñ Tuubaa comme du comme dul fay di la doo liggéey te sëñ Tuubaa ku mu sa aajo faju kon nun dara woon weesu takk takk suñ suñu digg gën a lu fàtte luñ defoon démb jàpp ne tey ju nekk lañ war a am ci sëriñ bi te tey jii la nañ jàpp ne tàmbaleeguñ magal gi di ñëw ci lañ war a tàmbali waaw dundu dara lu weesu jaam yàlla yoo xam ne sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa la sëñ borom teg léppam ci ci ci ci loxoom. mbir yi nag pësteef dong nga ci jotale nit pësteef dafa naa daaw dafa naa daaw jëg nañ fàtte lépp xam ni sëñ Muntaxa mi ko woote gën a fetliku ak gën a ñu gën euh, ñu gën a takk suñu digg dong nga tax mu woote ko koy nañ ci jëlee loru nañ ci jàngee ne noonu mos ñoo seqeegun ab jéego gën a takk suñu digg. dana góor góorlu te jàpp ni magal gi di ñëw incha allah ci la war a tàmbali liggéey Serigne Touba lañ defoon moom nañ ko teg fële yàlla na Serigne Touba dimbaleel boppam nag ndax dimbal leen ba ba noppi ndax buñ dimbalu toon duñu am tawfeex liggéeyal ko fii ci barabam bi kon yàlla na Serigne Touba dool ndimbalam ci noonu yàlla nañ gën a gàttanu ku nekk rek am nga ajo yàlla na ko su mën a faj ci barke Serigne Touba nu kawee na nga ko bëggee kon euh, liggéey baa ngoog Serigne baa ngoog du jeexal dara benn benn benn buntu la am buñ ci gën a muy Pastef ku ne nag lo lo la nga fi jëf nga fi góobee lu coow lu bari bari boo booloom bari bari rek kenn du fi jëf yu bari kenn du jubal yi fi kenn loo roqe-roqe fa nga nekk ak lu man di mel na nga xam ne yow képp yaa fa nekk sa jëf yow képp ko moom kenn yóbbaale wu la fexeel ba rek yow bu gaa yi dem di di séddoo bu la kenn gañe loolu rek mooy liggéey bi mm-hmm. jërë ngeen jëf isaakum la xeer tàllal leen loxo yi amin amin amin amin di leen